kii nee kooku mooy Boy Niang mbërum làmb la waaye maay ndi jaayam alaaj sàmm ndëkku maan ma nga xaman moo jur ndeyam suñu maam ñaari maam bokk ndey ak baay moom itam si boole ko ci ñaan gi kon sëriñ bi nee ñu jàng fatiha shafi'ana yawman دلمونا دي في سنبك مدينة يا سيدي يا رسول الله شافعنا يوما ينادي المنادي في الأهوال